d'accord mu nekk benn tubaab ñuy dox ba diir fii ak le treize ñu ne Sénégal jàppaat nañ fi benn moodu moodu waatal na ko ñett ci ay waa këram muy juróomi kaa ñu tëj jumaa tëj école tëj Sénégal amul dem amul dikk ñun ñëpp ñu gëmoon ko doon takk masque du ñu nuyonte ndax feebar la boo xam ne boo seetaanee information bi dangay xam ni muy wàllantee waaye nag lenn laa bëgg sénégalais dugal ko seen biir bopp ndax damay déglu léegi léegi ñëpp seen laaj benn laaj la. mooy lan moo waral léegi sénégalais yi nit bàyyeeku ci lut bi pour mun a xeex corona benn affaire laa ko jàppee man état bi ñoo war a wax nit ñi dëgg maanaam feebar bi dafa amoon Sénégal mais jeex na fi loolu laa bëgg nit ñi gëm ko gis nga nit ñi dañ doon yeewu ay 10 heures di koj information yi di xam Sénégal ñaata kaala am di inquiété wu maanaam sa kër sax yow ki nga bokkal ndey ak baay sax doo ko wóolu nuyu bay bokk ak moom palaat lekkukaay ndax feebar bi dañoo gëmoon na lu am Sénégal la waaye man li ma gëm mooy feebar bi jeex na fi man loolu laa gëm te ñu bëri loolu lañ gëm maanaam li tax nit ñi bàyyeeku lool la chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi ñuy indil ay liste dix heures di ñu indil ay cas man léegi liste bu ma seetaan rek déglu woon naa ko 107 cas yu am démb déglu woon naa ko nuñ ko répatrier déglu naa mais man leen laay ndaw tey dañ nag te man Grand Yoff laa dëkk. Grand Yoff ngandew fi benn ngande Grand Yoff booy corté booy booy compté quartier yi fi nekk bëriwul ñu ne tey Grand Yoff am na 4 cas boobu ba tey ñun ñu identifier suba ba tey ñu ngi dox mënuñu identifier ne koñ bii la am te Grand Yoff rëyul Grand Yoff boo génnee fii di dox même pas 30 minutes nga dajal Grand Yoff fan moo am cas Grand Yoff amul cas ñun dégguñu ko gisuñu ko mais Sénégal li ma gëm mooy coronavirus jeex na senegal ñu ngi ubbi école yi yow xale mën nga ko mën nga ko limiter fu mu war a yem ci école dama lay jox exemple rek xale mun nga koo limiter ne ko fii ngay yem école xale yi ñooy bokk benn douche bi xale yi ñooy bokk benn cours bi xale yi ñooy dawante gis nga professeur dañuy waxante dëgg benn benn limite la mën a defal xale muy wa muy élève am ci biir classe bi mais bu génnee mënatu ko contrôler man de man damay wax en tant que man man gëmatuma coronavirus am na Sénégal ndax bu bu bu amoon Sénégal ak fu mu toll ak lu état bi wax wallahi duñ tijji école yi e ma ne la parent élève wu ci am jom